waxtaane ko tay nak nee len damay xol ki nga xamanteni xam-xamam dafa màcc xalaatam màcc jëm ci Sénégal luy développer Sénégal motax tay ma dem ba Las Vegas setti ji fa benn ndaw so xamanteni mën naa ko jàppee c'est l'honorable député muy Coura Macky tey moom la ñuy dajeel fii suñu émission fi réew mi tollu honorable député ñi ngi lay nuyu Tandiama brother maa ngi lay fay di kontaan ci yow di nuyu bépp sénégalais buy seetaan VIP people di deglu sa kaddu yu am solo yi ngay wax eh, mu am importance tans li may wax ni dama ko miin mm-hmm. yow ya, rek lay setan senegal mm-hmm. kan la ci tek ak ma jambal mm-hmm. yeen rek parce que li ngeen di wax dafa match ak sama xam-xam man lima jël sama life yëpp juddoo Sénégal yaro fa tanj mhm. sama life yëpp ma spend ko ci adina bi du Sénégal Sénégal ñu bari dañoo yaakaar ni adina fa la yam mhm. mais lima ma ak lima gis yow dang ma koy dëggalal Cheikh mhm. Yirim daf ma koy dëggalal ma jambal daf ma koy dëggalal mo tax ma xam sama xam-xam ak seen xam-xam yeen dafa match, dëgg la di nuyu nak di ñaanal nak waa sama mbokku Haalpulaar yi. Mhm. Fuuta yow xam nga li xew ci àddina warangal képp. Mhm. sunu borom dafa cof senegal rek cof li li ñëw Florida barki démb. Mhm. Île de Gorée la jóge nee nañu. waaw ah waay. Île de boobu win jóge ñëw dal si Amérique jéggi Sénégal. kon ñu war a yàlla. ñu leen di ñaanal ci loolu nu nekk yal leen fa yàlla jëlee. mais ma bëgg ñu gëm suñu borom bi xam ni dafa xew fépp ci àddina bi nu bañ a yaakaar kenn tàllal yàlla suñu borom bi loxo mu gaaw dindi loolu bu desee ci ñi réew mi duñu mës jóg ci ndox moomu. kon ñu ngi koy nuyu di ko jaajëfal di l'honorable député Adja Koura Macky tey mi ngi foofu ca Las Vegas mais Adja gëm naa ni que senegal yaa ngi koy bàyyi xel. Linga-finga <laughs> li nga fi nga ubbee suñu mbokk yi nek kidira nek kédugu nek podor nek matam nek bakel manam ndogal suñu borom suñu dañ koy nangu ginnaw nak yalla tek na len metit duñu def dara dul compensation mm-hmm. masasu len ci biir jamono joju nga mm-hmm. xamanteni sénégal mi ngi dund lolu ñu gis ben ci doomu sénégalais muy un politicien di Bugan Gueye dani Anda mm-hmm. ak ay ñoñam muy coalition sam sa am ay ndimbalam yu mu lon ñi nga xamanteni manam moy ñe nek ca jamono jooju ki ñu dénk tey gouvernement bi muy premier ministre boobu ma nga woon ca ARENA di def ay levée de fonds di xool nu muy suqaleek li nga xamante ne mooy partem ginnaaw loolu ñu gis benn arrestation bu musclé gis xam naa ni gis nga vidéo yi ci réseaux sociaux yi ni ñu arrêté Bougane ci li nga xamante ni dañ ko ne doo dem ndaxte président mi ngi foofu Bakel donc da ngay arrêté Bougane wàcce otoom bi mu wàccee otoom ñu ne ko même dox sax doo ko def tey naka nga jàngatee loolu ci démocratie yow mi nekk ci république bi nga xamante ni démocratie foofu la soqe ko muy États-Unis. Euh, Tange. Mhm. ma wax la rek pour nga xam ne Amérique dañoo nekk ci démocratie. Mhm. vote yi le de la xuma la quatre. Mhm. commencé nañu barki démb àjjuma samedi dimanche ñi bëgg a vote early. Mhm. pour bëgg a féex dem vote ji ñu tëj ko dimanche. di xaar élection yi. mais li ma gis Sénégal barki démb may masawaat sama mbokk yi ne ci ndox mi. sonko di paadi sonko wonni wa kidira wa matam wa fuuta wa fu don yegulen iya, mi ngi paadi mi ngi wax lu koy jëriñ lu koy lu ko wara yobbu ci kaw mi ngi wax lo xamantene ni pour mom la mu gagner ensemble te sunu mbokk yi nekk ci ndox fofu bu gan don dem ñu diko arrêter arrêté tange Macky Sall la Macky Sall la gën tange ñaata yoon la Macky Sall jaar yoonu fuuta bi bukan top tànkam tangkam mos a gis ni jàpp ko. déedéet. ñaata yoon la bugaan gay dani jiiñ Mansour Faye luubal danga gis ñu jàpp ko. dedet Sonko nak tay dama ni ko dem jaay dëmm bugaan gay moy sa jinne sar juromi at yi nga naratu fi toog gay moy sa nek sa jinne dila la jommal bu nek may wax nag sunu homme de loi mhm. sunu justice mhm. nañu bàyyi xel tuuti ci Sénégal nañu bàyyi xel ci Sénégal Sonko def leen woowee woon justice Macky Sall mhm. mu ñëw toog changé ña fa nekkoon yëpp teg justice am tey jii moom laa gis ah. moom laay dégg mom hmm. la fil ndax Bougane gay lan la joté ki nek ci jawuji fi amerique président bu rombé ba paré da ngay jàll hmm. Bougane gay demulon pour xeexi yoru cocktail Molotov yoruñu xeer ñu ay weñ ay ndimbal la ñuy yore hmm. président bi nek ci jawuji lu tax Bougane jaar ci tali bobu justice nañu dimbali sénégalais yi ñu boole ñu lii dafay indi ñu gën a jaxasoo la ñu nangu woon ca nguuru Macky Sall ñu koy def booba ñoom ñoo nekk opposition Sonko ba tey ji Sonko ngi opposition yàlla da ko teral mais gisul li ko yàlla teral ba tey mi ngi nekk opposition di wax lu ko neex ci réew mi ne Sénégal ñu ne naan mu ne dama doon tàppale ba ma nekkee ci kaso bi mhm. xiit xaruwuma deewuma dama doon tàppale mooy tey laay tàppale waat ba rey sénégalais yi yëpp dinañ ko wax na sénégalais yi boppam dinañu ñëw ci loolu tey li nga wax noonu ni ñu jàppee Bougane maanaam nee nañu refus d'obtempérer dafa bañ a déglu homme de loi moom bërki démb di leaderu parti Pastef dafa amoon problème ak yoon justice la amal problème ah. ci diggante benn xale bu jigéen bu ne dafa ñëwoon pour bëslu ci foofu ginnaaw bëslu bi nag mu def leneen lu raw bëslu xale bu jigéen bi porté ko plainte ñu woo ko bi Mame Mbaye la waxal li nga xamante ni amul ay firnde ñu woolu ko ci ah. biir loolu mu ne duma jaar fii takk der yi nga xamante ne tey ñoom la ñu ne refus d'obtempérer ñu ne ko fii ngay jaar mu ne par la force du jaar fu ngeen jaar ñëpp a jógu yuuxuloo ko nee nañu dañ ko jaay doole Macky day def dictature tey Bougane bi nga xamante ni ndimbal la yoroon ndimbal di ko yóbbul ay nit jaar yoon bi nga xamante président jaaru fa président Kidira la jaar ndaxte Kédougou la jógee Bougane Ourossogui la jaar tey naka nga jàngatee ñaari arrestation yi alors que kële dafa amoon problème ak justice kii dafa doon dimbale ay moromu sama sénégalais yu nekk ci njàqare te moom moo fa waroon jiitu. Tange mhm. moo tax ma ni la sunu justice nañu xoolaat actuellement nii bu ñu bañee Sénégal tàkk Sonko saaga na seefu gendarme yi. Mhm. Sonko saaga na seefu police yi. Mhm. Sonko saaga na magistrat yi. saaga na avocat yi. saaga na président saaga na ministre. justice ñuy lox mënuñu fexe ba jàpp waa ji bugaan gay dani lii nu ko jàppeen d'accorduma ku mel ni man du d'accord su fekkoon dafa demoon pour xeexi hmm. su fekkoon da nga gis bugaan gay ay xalem di sànni kon bu boobaa dinaa ni bugaan demuloon pour ndimbal mais kenn gisul bugaan def benn at ku ne ci jaww ji kii ne ci suuf mani sonko moo yónnee ni nañu téye bugaan mu ke kàcc sénégalais yi may justice police gendarme yi nañu xam ne ñun ñëpp benn lañu mhm. lañu defoon ca Macky Sall ñëpp ku wax ñu ne Macky Sall dictateur la tey Sonko war naa jàpp benn bu wax ben baat ben rek Sonko dafa war a toog di dila bëggee di la seetaan mais léegi rek laa jóge fii nii sama ben xaritu américain mu may wax ndax demoo Sénégal ma ne demaguma I read you guys have a dictator. yes. you guys have a problem. no electricity no water Maniko, how do you know that. mu I read it Kura because you I read Senegal all the time. maanaam amul amul you guys I'm amul ndox. right now. yes. léegi. nee na Sénégal amul amul courant amul ndox amul jàmm amul liberté amul dara nga ne ko noo ko xamee. mun na damay mun na damay suuf Sénégal. may wax nag sénégalais yi ne leen. Uh-huh. ñoom ñoo war a taxaw. Mm-hmm. dans xeexal Sénégal bàyyi di jàpp benn nit buñ nee Sénégal tey ji metti na lool nit ñi jaaxle lool xaalis amul. Sonko ne kaay ma won leen ne sénégalais yi ay idiot lañu mhm. man damay laaj xaalis te dañ koy génnee mhm. ñi nga xamante ne ni tekki wu ñu dara Sénégal bu ñu sañoon Sénégal surux Sonko suruxal Sénégal mhm. ñooñu ñoo jël alal ministre mi ñii million ñii deux millions ñii trois millions ndax mbuqat Sonko ragal nekk caapataat laa wax waaw Adja Adja Koura ci biir foofu. Ah, ah. jamono ji ñuy jàpp Bougane boobu moom mi nga xamante ni comme ni nga ko waxee yàlla daf ko teral def ko premier. yàlla daf ko teral def ko premier ministre. mu summi li ko yàlla tarale bu dem soli ji mbubbu opposant bi doon chef de parti dem ci arena dem ci arena di def show mais ci biir arena dafa yëkkati ay kàddu yoo xamante ni dafa jaaxal sénégalais yi ndaxte bërki démb Aïda Mbodj moo dem ci sëñ Mountakha Bassirou Mbacké di ñaanal kii di euh, leaderu Pastef ne ko ni mu ko fekkee ci grève de la faim bi suñu xëyee ñi ne ko diw dee na du ko weddi moom ci boppam mu dellusiwaat jàkkaarloog askan bi yëpp ne musul def grève de la faim saa yu ñu ko bëggoon jël yóbbu ko ci kaso ba donc moom moo doon dee deedeelu di def grève de la faim pour jël temps tey Aïda Mbodj kilifa bu toll ni moom yëkkati ay kàddu jàkkaarloog sénégalais sëñ Moustapha Sy waxoon ko ne stratégie la comédie la ñu taxaw di saaga sëñ Moustapha Sy moom mu taxaw ci diggu mbooloo yëpp ne leen lépp li ma doon def stratégie la ndaxte kii di jaaykatu garab bi newoon na kii ñi newoon moo nekk ci coma moo doon yor télécommande bi naka nga jàngatee tey magum jëm nga bëgg a jiite réew yàlla tera defal la teraanga nga nekk premier ministre nga delluwaat di ay fee yoo xamante ni maanaam gàcce la tey Euh, damay njëkkee ci Aïda Mbodj mhm. Aïda Mbodj du maarol Aïda Mbodj boppam la bëggal mhm. Aïda Mbodj mooy genre jigéen ñooñu nga xam ni seeni sët la ñuy liggéeyal keeroo keeruñu baaw ci Sénégal ndax dégg naa ko nee mhm. balaa ngaa omelette dangay toj nen Sénégal il faut ñu jaxase ko mu doo ko baax moom mm-hmm. Aïda Mbodj moo génnee li ci gémmiñam mm-hmm. gis nga Tange ah. dama damaa bëgg ñun ñëpp ñi am xel laay waxal kenn ku ci ne nga toog mm-hmm. nga xoolaat Sénégal actuellement nii Sonko kàcc na Sénégal yi ba jël réew mi Sénégal ay xam ni Sonko kàcc kat la du leen yóbbu fenn li mu wax ca Grand sunu mbokk yenn ca ndox ma muy def show spectacle mhm. xoolal mel ni ku tame sànqal jur mhm. sonko am na lu mu bokk ak tame sonko day senn Moustapha Sy na jërëjëf sunu borom ba mu waxee lii moom mu ñëw dëggal ko won ne sénégalais yi eh, man du rek lay def da ngeen di and ak man bay force lu leen ma dara luma neex lay wax ci dëkk bi te da ngeen may jox seen alal ma leen di saga ngeen di bégee moy dooma ramam yi mi andal ñu baxu ñi mhm. ñi bañ Sénégal mhm. tekki wul dara du dem adina warangal kep xam nañ ni Sénégal is down Senegal going down mhm. Senegal parena na ñooñu jiite Pastef amul kenn tange ku la ci ëpp xam-xam barki alxuraanul karim billaahi bu ma la jëloon dugal la pale yaay gën a doxal jomaay d'accord because you understand what's going on in this world li xew ci àddina bi du Sénégal li xew ci addina bi yow tange xam nga ko lan mo tax sonko bëgg ñew taxaw yow tans nga juddo senegal yaro fa mag fa am kayitu juddu sonko don gor ñew di imposer mom ak jomay di imposer bugan do jaar fi bugan gor la yow bugan bugan joyul bugan bugan waxul ni way ka len dimbali ma he's a man suy genn di mais buy genn di jàkkaarloog mom bugan moy genre bobu maa jàkkaarloo woon a bugaan man ba muy woon topp Macky Sall Sénégal ñu bari di ko tàcc tey sama tuur la ma tàcc bugaan te bu nekkuloon ci dëkk dama naan bugaan warul xëccoo président yoon bi bokkunu yoon mhm. ki yee ngi ci jaww ji ki ngi ci suuf Sénégal nañu àtte dëgg mhm. élection yi di ñëw na mooy laas laki Sénégal li des ci seen restaf life ñu jox ko majorité tankat la du waxkatu dëgg day tàppale mani day manipuler triant la dañuy luubal jubuñu bay jubbanti bu ñu amee ku ñu jubbanti nañ jubbanti seen bopp ñun ñun ñun woowu lan ba pare bant yu woowu lan ba pare mënatuñu jubbanti